فعشرا و- والمرح الفرح جدا آه. آه. والأشر ال- واو والأشر المرح جدا والمرح فسره الملح بشدة الفرح والأشر نينا موي المرح جدا مرحت موي ال- الفرح جدا لولو لا farax lool la ñu tudde marax marax lool achar achar nag laysa baadahu illa al batar wa huwa qaribun min al kufr batirat maishataha fa tilka masakinuhum lam tuskan min baadihim illa qalilan wa kunna nahnu alwarisin batar moom a ama al farax qala taala la tafrax inna allaha la yuhibu alfarixin kooku farax bi maana suróor kenn araamalu ko ndax kooku nit du ko tey sax te la yukallifu allahu nafsan illa wusaha te xam nga kon farax gu jëm ci reewal nit la moom la ñuy araamal waaye farax bi maanaa suróor kontaan am lu la neex kooku kay nekkul ci taxta taxta taaqati linsaan kon kenn du ko ko tere ndax nit bi muy am lu ko naqari mënu ko tey bañu di ko ko tere bu la dara naqari laa wax bul kontaan laa wax ku ko man su ko defee fail kon boog dafa ni qalilun fi failtu wa fail gayra muaddan faila joo xam ne laazim la bal xiyaasu failay laazim ismu failam mooy failun wala afalu wa faalu wa qad ijtamaat fi maadati jariba ràmm na fa huwa jaribun wa ajrabu wa jarbaanu yett yëpp am na ci benn lafz bi léeg-léeg am yoo xam ne dana am failun yii am afalu yii nit ñu dégg ca faalaanu waaye yett yëpp dégg nañu leen ci jariba al libilu wala jariba ràmm na ku mu doon fa huwa jaribun wala fa huwa ajrabu wala fa ajrabu naxwu ashir ashiran ashirun mana aji rëy ashira fa huwa ashirun wa naxwu sadiyaana aji mar sadiya fa huwa sadiyaan wa naxwul ajhari jahar defe naa mooy bémpanu bëccëg bu bëccëgee waa ji du gis bémpanu lay guddi mooy acha bémpanu bëccëg nag jahar wa naxwul ajhari su ko defee tam wa faalu naw laa wa failun bi faul ka daxmi wal jamili wal fiilu jamul ah wa faalun ci ismu fail wasnu faalun aw laa moo gën a yell wa failun ak failun yooyu yaar ñoo gën a yell ci faula bi dam dégg nga faula faalun ji ni ki daxuma rëy na fa huwa daxmun aji rëy la jamula rafet na fa huwa jamilun na jamil nag na fekk ba ñu ni mooy xiyaas wal fiilu te fiil ba mooy jamu la rafet na ixtiraasan min jamaltu shahma ruyal naa ko ba mu ruy jamaltu shahma mooy ruyal naa garees ga fa ana jaamilun waaye dooni jamilu moo tax moo tax mu na fekk fiil ja nag doon jamu la bañ a doon jamala jamala mooy ruyal na ñu di ko jëfandikoo ci garees jamaltu shahma fa shahmu jamilun ay bi maana smil faayil maanaa lu ñu ruyal la majmulu moo tax mu ne na fekk nag fiil ji jamu la rafet na kooku mooy jamilun waxuma jamal de wa afalun fiihi qalilun afalu nee na lu néew la ci faula bi dam ni ki xamuqa fa huwa ahmaq lu néew la dégg nga afalun fiihi qalilun dégg naxu xaduba lawnu xonq na cur xonq na xaduba fa huwa axdabu batula tar na njàmbaar waaje fa huwa batalun xasanun kooku mooy faalun wa afalun fiihi qalilun wa faalun ni ki batalun yooyu yaar néew nañu afalu ak faalun néew na ci ismu faayil faula bi dam mu ni kat xad yax naa mën na doyloo faala bil fathi léeg-léeg bisi wal faaili ndax faala bil fathi néewoon nañu buy laasim ak buy mutaaddi yëpp faailun xiyaas la ca faala bil fathi waaye nag xad yax naa mën naa doyloo yenn tàng bi si wal faaili ci lu dul wasnu faailin dégg nga mën na koo doyloo du dëgg su ko defee ndiki taaba fa huwa au lieu nga ni taaibun nga ni tayyibun tayyibun failun la woon dégg nga ah bu doon failin duñu ko li daxaame wa shaaxa màggat na fa huwa cheykhun waxoo chaaixun chaaba bi jaaw na fa huwa ashiyabu seetal kii afalu la kee failun la kee faalun la yooyu yëpp faala lañ nee na moo tax mu ni faala léeg-léeg mu doyloo ismu faayil ju yorul wasnu faayil ndax léegi ja génn nañ ci yooyu yëpp sulaasi yu leen doon wax génn nañu ca wasinatul mudaari ismu faayili min gayri di salaasi kal muwaasili tëgginu ismu feelu mudaari o boo gënee boo xasee génn sulaasi yu ismu faayil qiyaasi kese kese la amul benn wasnu shaas te boo xamee mudaari o ma rek xam nga ko jeex na fa xarafu mudaara awa dindi ko def fa ak miim gu ñu dàmm la jëkk mujj ga kasra ko jeex na mu daari om moo indeeti ismu faayil ma ngo moo tax mu ni wasinatul mudaari moo di ismu faayil min xayri salaasi ci lu dul boroom yetti araf même bu dee rubaayu ni ki akrama fa huwa yukrimun waasala rubaayu la fa huwa muwaasilun aji jokkoo waaye nag ma kasri mat lu wi la xiiri ànd ak kasra lu ñu toppi mujj ga maanaam la mujj ga topp ci moom nañ ko kasra nag xaraf wa jiitu mujj ga nañ ko kasra mutlaqan kasra woon na ca mudaari am nekk akrama yukrimu wala kat dégg nga kasra wu ca woon dégg nga mooy mutlaqan ji kusira fil mudaari am lam yuksar kaana maksuuran aw maftuuxan taqulu waasila yuwaasilu fa huwa muwaasilun taallama seetal yataallamu la jëkk mujj ga dañ ko fatawa woon waaye du tee nga kasra ko fii nga ni fa huwa mutaallimun moo tax mudaari am yi soo dàmmee miim dawal kasra la jëkk ga mutlaqan daana kasra ca mudaari wala daana fata yow daal ngay daan am nga sa muda am nga sa ismu faay wa dammi miimin saidin dammi miim boo xam dañu ko ca dolli xat sabaqa mu jiitu wa in fataxta minhu ma kaanan kasar saarasma mafulin ka mislil muntazar wa in fataxta soo fata minhu ca mudaari oma ci ci mudaari om mi nga soppi ba di ko def sa ismu faayil soo fata nag ma ma kaana la nekkoon in kasara di kasra wu ba nga koy def ismu faayil te muy la jëkk muj soo fataa loolee nga daan kasra saara mu faf soppi ku mujj isma maful kamitli muntazar ku ñuy xaaru boo ko bàyyi woon ci muntazir aji xaaru lay firi di ismu faayil wa fi ismi mafuli thulathi tarat zinatu mafulin ka aatin min qasat wa naaba naqlan anhu dhu faili naxwu fatatin aw fatan ka xiili dégg nga wa tarada xiyaasuna ci ismu mafulu thulathi lu ca xiyaasu sinatu mafulin maf sulaas yi daal ismu mafulam wasnu mafulin xiyaasu na ca ka aatin ni ki wasnu bu di aji dikk min qasada nga ni maqsuudun mooy wasnu maful maqsuud lu ñu jublu mooy ismu maful ka aatin ay ka wasnin aatin ah ni ki wanaa ba remplace na anhu ci failin ci doon ismu maful gi na toxal na ko remplacé na ko ذو وز... ذو فعيل ذو بمعنى صاحب صاحب فعيل أي صاحب هذا الوزن لفظ صاح... لفظ صاحب هذا الوزن معنى لف... لفظ بير وزن فعيل من رامبلاس مفعول بدون كنيو دف نانغام غني فعيل بمعنى كنيو دف نانغام نيكي قتيل كنيو راي معنى ذو فعيل معنى صاحب هذا الوزن رك لو بعد بير وزن بي من رامبلاس كو niki nga ni waaye bu boobaa nag waxiina idin gannaaw ismu maf'ul la te doon fa'ilin comme ni nu daan wax yastawi fihi almudhakkar wal muannas fa taqulu fatatun ka xiilun xaleelu jigéen bu tusgalu wala fatan xaleelu góor ka xiilin bu tusgalu bu ñu tusgal fa'ilin bu dee ismu maf'ul feeg ma ngi ànd ak man od ma góor ak jigéen a cay yem rajulun jarihun wa mraatun jarihun dégg nga su dee ismu fa'il nag léegi góor geeg jigéen daal di wuute kon safaanam moo doon faulun faulun moom dégg nga bu dee ismu fail la góor ak jigéen di ca yem su dee ismu maful góor ak jigéen wuute ca ñu góoral góor jigéenal jigéen maanaa jamalun rakubun lu dëgg déedéet rajulun saburun wa mraatun saburun wasnu faulun bu dee ismu faay lañ ci jublu góor ak jigéen a ca yem su dee ismu mafool góor ak jigéen wute nga ni jamalun rakubun wa naaqatun rakubatun maanaam markubatun wuteeg failin failin moom bu dee ismu faayil booba góor ak jigéen da cay daal di wute rajulun rahimun wa mraatun rahimatun bu dee ismu mafool ñu yem nga ni rajulun qatilun wa mraatun qatilun feeg ña nga ànd ak mawsuuf ma nag laa wax amma soo ko beree nag ragal lënt day tax nga bàyyi ko ci góor ak jigéen niki boo nee marartu bi qatilati bani fulaan léegi àndul ak mawsuuf ma soo noon imraatun qatilun ngay wax waaye marartu bi qatilatin soo ko waxee moom bàyyi ko nag ndem jigéen la nil xatiilatin bu dee góor nga door ni xatiila ndax àndul ak mawsuuf mi soo leen yemalee kenn du xam li ngay wax góor la am jigéen a sifatul musbiha de mooy bunt boobu ba niroog ismu faayil ah ñu wax lan lañu niroo danañu ko danañu niroo ci manees na ko tasniya manees na ko jamu manees na ko ifraat ah kon moom niroonte naag ismu faayil te ñu di ko def si wasafe itam ah wute nañu nag ismu faayil laasim ak mutaaddi yëpp dañ ko ciy tëgg sifatu musbiha nag ci laasim dong lañu koy tëgg ismu faayil mën na dem ci jamono bi passé mën na dem ci jamono bi nu nekk mën na dem ci ëllëg passé woon nañu ko su taarif bi moom ci lanu ne sifa boo xam ne niroo naag ismu faayil musbihati aji niru la bismil faayil du dëgg lu tax niroo nañu ci dañu ay sifa lañu ku ci ne mën nañ ko wasafe te bu ku ci ne mën nañ ko tasniya ku ne mën nañu ko jam ku ne mën nañ ko def mufrad mu ni ba tey sifat nag la soo xam ne ustuxsina rafet la nañu jaru failin jar fail biha maanan loo xam ne fail la ci maanaa biha ci moom kooku ismu fail nag loolu wutale na leen am na li ñu niroo wax nanu ko waaye am na lu ñu wuute kii moom danañu rafetlu lay faayilam ci maanaa mu dellu laaf ko seetal xasanul wajhi aji rafet kanam lu doon cosaan xasanun wajhuhu kanam gi du mooy faayilu rafet bi nga nga laafal sifa si faayilam te bu doon ismu faayil loolu du rafet laa yasunu an taqula zaydun zaydun daaribul abi li anna man daraba abuhu laa laa yaxsunu an yusnada darbu ilayhi moom ak ku bàyyam dóor danañu ne diw dóor daaribun ismu faayil la kon rafet laafal ko lay doon faayil lu ñaaw lay doon nga ni zaydun daaribul abi ah te bu fekkoon ne danga neen xasanul abi mu mu rafet torop xasanul abi ko rafet bàyyi la kooku mën nga ko waaye daaribul abi kii da di ismu sifatu musbiha moo tax mu laaf faayilam ci maanaa rafet kii nag ismu faayil la moom la ni sifatun ustuxsina soo xaan rafet loof na ah jarru faayilin maanan biha jar lay faayil ci maanaa ñu jare ko ko kooka moom la ñu tuddee al musbihatu ismal faayil kooku niru na ismu faayil waaye du ismu faayil kon nag fan la ñu koy tëgge wa sawquha min laazimin li xaadiri ka taahiri alqalbi jamil zaahiri wa sawquha ak tëggam ma ngi jóge ci fi'al boo xam ne la laazim lay doon du am ci mutaaddi mukk li xaadirin te doon jamono bu teew du doon maadi du doon kile du doon mustaqbal fulaanun xasanul waji maanaa le fii mu ne rek la tekki waaye du démb du agadan waxunu ko dégg nga wuteeg zaydun daaribun am si mbaa laana mbaa agadan ndax in fayil ni ki tey fulaanun taahirul qalbi aji laab xol la maanaam moom la nekkee nii rek ah waxuñu ndaxte moom aji laab la xol démb tey doonu ko déet loolu moo nekk jamilu zahir ku rafet zahir tahir ak jamil foofu sifa musbiha la wa amalu ismil faa'ili almu'adda laha ala alhaddi alladi qad xudda amalu jëfi ismu faa'il ja nga xamoon te mu passé almu'adda ismu faayil joo xam ne mutaaddi la la mu daan def mën a nasab mafool lahaa ñeel na kii alal xaddi ca limite ba sart ba la di ba nga xam ne xat xudda dayaloon nañu ko ci ismu faayil ja te mooy bu fekkee ni yorul alkat dégg nga day du jëf lu dul bu nekkee bu maanaam ci fa muy sukkandiku ismu faayil xam nga ni dafa daan sukkandiku ci dara ci ak dàq wala muy xabar mubtad wala muy sifa loolu du passé nanu ko dara nasab mafool kii tam nag noonu waaye lu ñu wuute kii moom ci laasim la ñu koy tëgg te laasim mënul am mafool boppam kon la muy nasab kat kooku tasbihan bil mafooli bihi rek dañu ko boo ne saydun alxasanul wajha wala xasanu wajha xasanun alxasanu wajhahoo wajhahoo nasab gi nga ko nasab tasbihan bil mafooli bihi kat wala sa mafoolan bihi ndax xasanu laasim la du mutaaddi waaye du tee jëfi ismu faayil ji bu amee fa mu sukkandiku ni ki saydun xasanun wajha xasanu xasan alxasanu wajhahu mën na ko nasab dananu dikk ci ay jëfam na moo tax alal xaddi alladi qad xudda ci maanaam sart ba ñu sartaloon ismu faayil am fu mu sukkandiku door a mën a liggéey moom mën na ko ah حس- حسن الوجه حسن الوجه ففي حسن ضمير مرفوع يعود على زيد هو الفاعل والوجه منصوب على التشبيه بالمفعول به كان دوكو مفعول به حقيقة داخ لازم وسبق ما تعمل فيه مجتنب آه الملحق دون الملحق به moom nasabam s- nira gu ñuy niraleeg mafool yëpp ma ngi ko sàcc ci ismu fayil bi nga xam ne niru na ko ba ñu tudde ko sifa musbiha waaye kon du jekku jëf jani ko ismu fayil jekkoo ismu fayil bu dawaloon mafoolam du du ca dara ne boo ni woon zayda zaydun amran daari bun dara du ci ne daari bun moo nasab amran waaye wajhahu xasanun kenn mënu ko wax kon jiitug la muy jëf ci moom muj tana bun lu ñuy wattandiku la wa kawnuhu nekk mi daa sabab bi yettindi borom sabab xaaja wajaba war na maana sabab mooy damir ji war a jokku ci eh, m- ma maamulam dellu ca borom sifa sa déggoo saydun xasanun wajhuhu damir jooju mu yor jokku ci wa- xasanu wajhihi sit soo ko ko laafeet damir ja fokk mu am s- sabab boobu dégg nga léegi nag su amee jëfam sifa si mën na laaf mën na yor al maanaam sababiyu bi mën na sababiyu bi ki nga xam ne moo doon fayil ci maanaa te ñu di ko ko laafal mën na yor al mën na laaf mën nay mujarrad min al wali daafati su su ko defee lu mu ci mën doon sifa si moom léegi dana rafaa maamulam boobu nekk xasanul wajhu wala mu nasab ko xasanul wajha wala mu jaar ko xasanul wajhi mooy wax di di détaillé nag kalkin boobu farfa rafaal biha ak sifa si wansib nasabal biha ak moom wa jurra jaral biha ak moom yett yëpp xaala kawnihi maa al dana yor al nga rafaayal ko faayil wala nga nasabal ko lu ñuy nisoog niroog mafool bihi wala nga jaral ko ci laafe wa doona al wala mu ñàkk a yor al niki xasanun al wajhu saydun xasanun al wajha ah saydun xasanul wajhi al dégg nga fekk ma al mu ànd ak al nga ne alxasanu al wajhu alxasanu wajhahu alxasanu dégg nga wajhi Wu- mu yor al wala mu ñàkk a yor al lu ci ne mën na rafaa mën na sab mën jar muy juróom benn dégg nga ah wa doona al waaw doona al aw maa al nga nasabe ko lan ah masxuba al lu yor al nga ne ki alxasanu al wajhu lu dëgg nga rafaa ko fekk ma ngi yor al li nga ko rafaaye yor al wa doona al wala mu yor ñàkk a yor al nga ni saydun xasanun al wajhu wala al wajha nga nga nga nasabee ko lu yor al wala nga rafaa ko ko wala nga jare ko ko wa ma tasat ak lu jokku bihaa ci moom mu daafan doon lu ñu laaf alxasanu wajhahu alxasanu wajhi alxasan aw mujarradan wala mujarrad alxasanu wajhun wala wajhan wala wajhin waaye nag lenn la nanguwul wala tajrur biha ma al suma min alxala wa min idaafatin li taaliha loolu la nanguwul tàng ba muy yor al bañul nga rafaaye ko dara bañul nga nasabe ko maanaa dara ji bañul nga rafaaye ko sabab yu bu yor al wala bu laaf wala bu- wala buy mujarrad yorul al laafut ba ngay rafaa bañu ci dara ba ngay nasab bañu ci dara su dee jar nag mu ne la ah wala tajrur bul jar biha ak sifa si fekk maa al mu ngi amee al niki alxasanu bul ca jar su man lisim joo xam ne sabab yu boo xam ne xalaa min al yorul al yorul yorul génn wéet na ci min idaafatin li taaliha yorul al laaful lu yor al nee na kooku moom nag bu ko ko def niki alxasanu wajhin jar de bu fekkoon da nga naan wajhun mbaa wajhan bañu ko li mu yor al yëpp su yorul woon alit bañu ci dara rafaak nasab ak jar yëpp bañ ci dara waaye nag su yoree al moom sifa si musbiha bi ba bañul nga rafaaye ko benn sabab yu moo xam sabab yu ba mu daar naa mu jarat laa ma àll waaye du nangu nag mu yor al moom sifa bi ba yeggal nga di ko jare sabab yu boo xam ne yorul al laaful lu yor al niki alxasanu wajhin soo bëggee waxal alxasanu wajhun mbaa alxasanu wajhan wala alxasanu bañ a yor al kon loola neex defal wala tajrur biha xaala kawnihi maa al su man maanaa isman xalaa min al xalaa wa xalaa it min idaafatin li taali al nde bu fekkoon ni moom yorul al waaye laaf na lu yor al ci kanam booy boo jar nga ni alxasanu wajhil abi bañu ko ndax wajhi yorul al waaye laaf na lu yor al dégg ngeen ko loolu rek mooy li mu bañ waxu leen u de xaw ma da ngeen déggulam déet wala tajrur bi a ma al suman min alxalaa wa min idaafatin li taaliha wa ma lam yaxlu lu ca wéetul nag fa huwa moom musima melale nañ ko bil jawaab si ci dagan su fekkee ni kay lim sababi yoom yorul al yor na al baax na dégg nga wala yorul al waaye laaf na lu yor al lu laafe ba gudd gudd kon su ko defee ba tey dagan na jafe moo gën jafe ismu faayil kay ndax yéenu ci doon wax rek de mooy li ci ne jafe gi sababi yoom moom ci boppam si fa si dana yor al dana ñàkk yor al niki alxasanu alxasanu wala xasanun rek lu mu ci mën a doon itam li muy laaf léeg-léeg mu lu yor al sababi yi ba ci boppam niki al wajhu ji waroon di faayil dégg nga léeg-léeg mut yorul al waaye dafa laaf niki xasanu wajhihi wala mujarrad la lu ñu rafleel la ci alag laafe yëpp niki alxasanu wajhun lu dëgg loolu yëpp kon sababi yo dana nekke noonu dana ba mu demee bay laafit dana laaf lu yor al buntu taajub waxinu yéemu ci arab la ñu tudde taajub taajub ci boppam mu isticdaamu cheyin xafiya sababu naw loo xam ne fa mu li nga koy nawee dangaa xamul sabab ba ko def loolu moo di taajub ci maana arab ak lu dul araba ci yam taajub daal min xaysu huwa isticdaamu cheyin xafiya sababu dara rëy fi yow lool nga di ko naw loo xam ne sabab ba nga xamul loolu moo tax ñu naan ida zahara sabab batala al ajab bu sabab feeñee rek ajab daldi yàqu maanaam bu nit toogee ci bu nit bon mbooloo nekkee ne nga seen nit koo xam ni boppi nit ñëpp paasewul ñaari mbaggam da lay yéem guddaayam boobu danga koy yéem waaye bu ñu la nee dañu ko këppal benn barigo kat mu toog ca kaw mu taxaw ca léegi ah ah da ngay daal di ah aw kay sa sa yéem dal nay dem ndax sabab ba dafa feeñ ida zahara sabab batala al ajab fii nag li ñu fi jublu ci istilaaxu naxwu waxinu ajam waxinu ajab yéem ci alfaadi arab looloon tax di wax nun kon nun maanaay maanaa boobu nga xam ne mooy xaqiqa ajab kooku leneen la boo ko teg li naxwu xool moom alfaaz yi daal ni ñu ko nekk lafsu bi ko bi ñu ko war a tëgg ñaari feela bi maanaam waxinu arab waxinu ajab am na waxin yu bare ci arab waxin wuy tegtale yéem bare na ci arab danañu ne lillahi darruhu farisan e loolu yéem la moo tax ñu di ko nasabal tamyiz wala dana doon waxinu saba sax ni ki subhaanallah inna al mumina laa yanjusu xayan wala mayitan kooku ab xadis la subhaanallah inna al mumina laa yanjusu xayan wala mayitan ah te yéem kooku defe woon ni ab julit mën na nekk sobe xëy na bu dee mu ne ko subhaanallah inna al mumina laa yanjusu kooku yéem la mën na nekk melaw laajte kayfa takfuruuna billahi wa kuntum amwaatan fa axyaakum summa yumitu kayfa takfuruuna mu yéen na ngeen deeti mën a weddee yàlla te xam ni amuleen woon mu amal leen nang looloot waxinu yéem la waaye nag al mubawabu lahu fi naxwi nag siixataani li nga xam ne mooy cosaan bi dëgg-dëgg yooyu yëpp yu ko gaar la ndax kayfa moom laajte rek la waroon a doon ci cosaan subhaanallahi tasbix dong la doon doon ci cosaan waaye teewul waxinu yéem la foofu dégg nga atta dana am ci jumlay feel joo xam ni dafa doon jumlay mustaqil la joo xam ni istinaaf la ni ki qaala alladina laa yarjuuna liqaana lawlaa unzila alayna almalaikatu aw nara rabbana mu ne laqad istakbaru fi anfusihim ay ñoo ñoo ko rëy loolu sax des na ci dégg maanaam yéem cosaan yi nga xam ne mooy waxin bi nga xam ne moom laa yustaamalu illa fi taajub moom la ñu sàkkal ñaari siixa la am ci naxwu ñoom la ñu utal bunt bu ñu leen beral mooy maa afalahu ak af'il bihi amma maa afalahu kooku moom fi'lu maadin lay doon la muy nasab maf'ul bihi lay doon af'il bihi siixatu fi'li lamri la yor te fekk moom moom it fi'lu taajub la moog li maa afalahu maanaam bi nga ca daan dégg ay moo def nang moom ma yéem naa meloo nanga bi moom it moom la waaye moom melow siixatu lamri la am te li muy jëf ci moom faa'ilam la waaye nag xarafu jar lañ cay def baawu jar lañ cay def li yuksibahu suratal fadlati ngir mu nirale koog melow fadlan melow mafool mel ni marartu bi zaydin bi zaydin mafoolu marartu la da ko munta nasab ndax li muy laasim nga def ci xarafu jar wi muy mu aju ci marartu ñu naan bi zaydin mutaalliqun bi marartu asmi' bihim wa absir bihim jooju faa'ilu asmi' la waaye day ñaaw baat bi yor siixatu lamri ñu deeti ku wér ci faa'ilu zahir ñu daal di ca def xarafu jar woowu li yuksibahu suratal fadlati ngir mu yóbbee ko yób yóbbe ko melow fadla mu niroog maratu bi saydi waaye kat bihim jooju boy mooy faa'ilu asmi' de ci maanaa de maa af'alahu nag moom damiram damiru faayilam mustatir la lay topp ci moom boo ne maa ahsana zaydan ahsana moom nëbb na faayilam zaydan mafoolam lay doon xaqiqatan yooyu yaari tëgg maa afalahu ak afil bihi ci lay wax la mu ciy wax nag mooy yan fi'l lañu ko mën a tëgg ndax doo mën fi'l jooju tëgg leen ci déedéet fokk ay charte bu ci àggee ci yax sax da koy lim sart yi nga xam ne ci yooyu mooy fi'l yi ñu ko mën a tëgg moo tax mu ni bi af'alan tiq baadama taajuba aw ji bi af'il qabla majrurin bi ba in tiq tuddal bi af'ala ci baat wasnu af'ala ba baadama ci gannaaw ma maa af'ala ay maa bi maanaa shay'un azimun maa mbir mu rëy axsana rafetal na zaydan bu arab ba maa bi maanaa shay'un azim waaw su ko defee kooku mooy maa afalahu maa akrama zaydan aw ji wala nga indi seex ak ñaareel ga mooy afil nga ni ahsin wala akrim qabla qabla failin majrurin bi baa in la jiitu fail jooy jarak ba akrim bi zaydin maanaahu kat mooy karuma zaydun kon zayd faayil la ci maana waaye nag comme afil moom yorul seexatu fiil fiilu maat xanaa seexatu fiili lamri la am akrim kon day ñaaw nga ni akrim zaydun ndaxte fiilu lamar kenn du ko wér ci lismu zahir noonu kon li xabla faayilin majrurin bi baa in akrim bi zaydin yooyu yooyu yaar